ma tàmbuleeti te wax la féete te xam le féete jariñu màggal ku jug di màggal li yàlla màggal des na la màggal danañ la jiital aouzu billah bismillah inna waliyallah jërëjëfe Serigne Touba jaaraam Maam Cheikh Ibra Fall ñu ngi siyaaraat baax a baax a baax mbokki taalibe yi góor yàlla yi ak soxna yëpp maanaam di rafetlu tamit seen teewaay ci liggéey bi ci bis bi nga xam ne dañ koy màggal suñu yaakaar tey ëllëg di Cheikh Ahmadou Bamba Khadim moom mi nga xam ne dafa woote ne sant na leen ma yàlla ci sama tukki bi ñun nag dañuy murit bokk ci njabootu Serigne Touba sëriñ bi kat digal ñu loolu moo tax ñu ne fu ñu jaar wane fi suñu pas-pas ak suñu pasteef ci liggéey bi. liggéey bi nag dañ ko ànd ak ay mbokki taalibe ku ci mel ne jëriñ soxna Aji Guèye soxna Fatou Ndoye soxna Ndeye Ami soxna Fatim Ñang jëriñ Assane jëriñ Vieux ah ak yeneen mbokki taalibe yëpp amaana bu ñu limee dañuy juum ay ñoom jëriñ dee nag ñëpp daal waaw bis bi nag dara waral ko lu dul maanaam sant sant yàlla sant Serigne Touba ci li nga xam ne maanaam moo ñu ko moy muy jàmm ji nga xam ne moom moo tax ñëpp tey ji taxaw fii di ko sant sant gi weesuwut ngir ngir jàmm jàng alxuraan berne mbokki taalibe yi ndax yaakaar naa bi xëyee ci suba def nañ def nañ ay wàcce kaamil jàng jàng jàng fi ay xasida sant sante ko Serigne Touba waaw ndax boo xoolee boo xoolee fee suñu ginnaaw waaw ku ci mel ne suñu mbokk soxna yi ñu ci waañ bi di di nekk ci li jëm ci wàllum xéwal gi kon loolu lépp day wane nañ maam li nga xam ne mooy moom la Serigne Touba santaane. waaw waa daara bi ñu ngi ci waa di santaat bu baax a baax nag mboolem koo xam ne yaan ci kër gi waa rawatina jëriñ ju màjj ji nga xam ne mooy soxna Adji Guèye ndax yaakaar naa ne lépp moom la waaw ndax ba dara doonu dara loon ba tey jii dara doon dara waaw di ko santaat Serigne Touba baax baax a baax te ñu xam ne kat ñun moom dañ ay ndaw rek jël suñu lépp ma ko Serigne Touba waaw yaakaaruñu kenn maam soxlaañu kenn ku sëriñ Serigne Touba waaw ñun suñu lépp Serigne Touba la. waaw kon di santaat bu baax a baax a baax a baax a baax mboolem ñi ñëpp koo xam ne maanaam teew na ci liggéey mi ngir jëm Serigne Touba ñu lay sant di la gërëm. alhamdulilah bisimilah barke borom Touba jërëjëf sëriñ Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul maa ngi lay nuyu yéen ñëpp kenn ku ci nekk sa tur ak ci sa sant a ah, di wax di sant rek di sant ñun daal ci sant lañ nekk sant ku tedd daal moo waral lii. ci sant daal la ñu nekk maa ngi nuyu ñëpp daayira nuuru daayira ni yëpp maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal di ñaan yàlla suñu borom yàlla wéral cër ci barke Serigne Touba ba di ñuy jëwriñ Ousmane Ndoye jëwriñ Neene jëwriñ Assane jëruñ Ve jëruñ yëpp rek Ousseynou ñëpp ku lim juum maa ngi leen nuyu ñëpp ñi ma woow ak ñi ñëpp nuyu jëwriñ soxna yi. Fatou Ndoye Ndeya Meek suñu yaay yi ñoom nday jaw tan maakala sama yaay Mari Ñang di leen ñaanal fan wu gudd suñu mbokk yi suñu xarit yi ak suñu dëkkandoo yi ndax kenn mënul yàlla rek moo mën tamit nga woote say mbokk wiisi say dëkkandoo wiisi la rek mënoo leen fay ah ñi ñaan yàlla tamit bis bii wax dëgg yàlla ñu commencé ko ci bisimilahi rahmaani rahim eggaleeg ci alhamdulilah rabbil di sant Serigne Touba rek di sant Serigne tubaa daal ci lañ ko commencé ci lañ koy eggalee kontaan nañ bu baax a baax nag waaw. di nuyu ñëpp rek jëwriñ Papa Ndiaye ak borom baas beeg ñëpp nuyu nañ leen ndax kenn ku ci nekk jàpp nga ci fii li nga xamante ne yëngu nañ ci rek kenn ku ci nekk rek jàpp nga ci kon ñoo ngi nii ku ma fàtte rek na xam ni. maa la fàtte mais sama xel a ngi ci yow kontaan naa ci ñëpp nag di ñaanal ñëpp nag yokk bu déwénee yokkoo yokkoo yokkoo yokku ni jumaay Touba yàlla na ko Serigne tubaa def te Serigne tubaa am na ko mën na ko te sañ nañu koo defal te ñoo ko koy ñaan tamit ndax tamit wax dëgg yàlla bañ ko dalee def ba léegi dañuy yokk rek waaye gisuñu ci benn wàññeeku yàlla buñ ci gis ci suñu bopp nag li ñuy def nii yàlla buñ ci gis suñuy bopp te yàlla nañ ci dajee ngërëmal Serigne Touba loolu rek la ñuy ñaan di ñaana nag sama génn àdduna yàlla nag bis bii nekk ca ñi ñuy berdeel ci barki borom Touba loolu ak ñi wasalaam fajaru magal adaya nana pomak banana kokok anana wajal ko magal kafe ki sukar fanta ko ganjar luy dem ci bi waajal ci màggal ñuy abraayi xar defar ko bam ñor di daana ley war moo baax ci màggal wutal ginaar sa teroof ko bam sa boole ci ay yàpp ci bisu màggal nekk bis bu am solo ñu safar. wallaay ku ne Tuuba. wallaay. ñu xool ngeen nekk ay jàmbaar ci yoonu sëriñ bi. daaw ngeen def ko daaw a doon mu Tuuba rek la ma ndax li metti woon lépp sëriñ Tuuba def na ko ba muy metti moo demoon waaye bi mu neexee ñooy añee kon nag dañ naan jërëjëf sëriñ Tuuba jaaraame maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babou Ndiaye dégg ma dégg ngeen dem la bésam bii. yeyoo na ay gëléem na maam Cheikh ne woon maam Anta demoon ba mu jógee ci géej gi maam Cheikh Anta dafa ganale ba rey nit ba tër nit bëgg koo rey ndegem ñooñe nag xam sëriñ Touba ñooy def loolu mas ñun ñu xamul Serigne Touba tey tey tey añ kon nag ndokk ban nu baaxee ñu fekke te tal ba mën a jëriñu ci bésam bii safar Serigne Touba ji ñetti guddi Ndakaaru mi remiti woon na lay sa buri ndax dañu woon xalaatul dara ci àddina fu ne yóbbu nañ ko fa waaye xalamul fen loolu ñetti guddi Ndakaar ni su ma mënoon a dellu si ba xeex ak tubaab bi waaye dellu siwul na xeex ak tubaab waaye ñu fi nekk ñu ngi xeex ak tubaab bi ndax tey jii képp koo xamante ni xam nga ni taalibe Sëriñ baa nga sa sedd na la Serigne Touba liggéey woon ñu ngi kiy añ Touba ba doon def lu bon ngir defe ne day day fay Serigne Touba xam na ni Serigne Touba amul tànk ginnaaw tànk kanam la am kon nag ñun ñu ngi sant yàlla bu wér a wér a wér a wér a wér di julli ci Muhammad salallaahu taala wa sallam di njukkal Serigne Touba ndax ñun Serigne Touba dañ ko war a njukkal ndax liggéeyalu liggéeyalu ñu Serigne Touba de sunu bopp la ñuy liggéeyal ci Serigne Touba ndax Serigne bi mu liggéey jotee liggéey na liggéey ba ñëw ni ñëw leen añ ay noonam def ko lu bon mu ñëw kenn ku ne ku fi mas a wàcc yonent bi sax ba kay noonam tooñee dafa jiyaar ak ñoom Sëriñ Tuuba ay noonam tooñ ko mu def jiyaartu nafsi dem ba ñëw ci coono yi ne man kat maa ngi jéggal sama noon yi kon Balla ay saburi ñun xam nga lu nu war a doon ay murit di royukaay ndax danoo wan yoonu royukaay yu Cheikh Ibra wan ñu taalibe wan ñu ni ñuy ni ñuy def ak taalibe kon ñun ay taalibe la ñu war a doon royukaay yu Serigne Touba ak njabootam bu fekkoon ni yaafus day am doomi Serigne Touba du liggéey tey ndax. kon nag ñun ñi bu nu toogee naan jërëjëfat Serigne Touba Serigne Touba liggéeyal nañu war na ñoo xam ne bu ñu liggéeyalee war na noo añ waaye war na noo jëpp war nañoo rus Serigne Touba di ñu liggéey te ni ruuñu li Serigne Touba doon def kon jërëjëfat sëriñ Touba jaaraama noonu def ndokk nag yeen ñii ngeen xam ne ay ay tuut tànk ngeen di liggéey ci sëriñ bi loo xam ndax sëñ Saliou Mbacke moo leen defar ndax sëñ Saliou kat mooy borom ndaw ñi ndax sëriñ Touba dani sëñ Saliou dani naa jël ndaw ñi def ci lu sëriñ bi defoon ca mag ña ñu def leen ko nag ba pare mate ko lool nag balay saburi maam maram ngeen di yëngu benn xale yëngoo ci dul sëriñ Touba ak Cheikh Ibra bés bi kenn rek mënu ko a géey bu jëlee bés bi tey ba di ko def fii yéen la ci yaakaar yéen waa daayira bi ngeen ànd koog moom nag fu mu yem ak fu mu yokkoo ci ngir jëmi sëriñ Touba dañ leen di ñaanal nag seen tànk yàlla boo leen ko teggi te leen mag mu am ñam ci darajay xaadimul Moustapha barke borom daaru mu si ngeen yàgg fi loolu te ànd ak wér kontaan nañu ko bés bi moom lépp a ngi fi waaw ñëpp a ngi fi dëkkandoo yi jàpp nañu mbokk jàpp nañu daayira yi jàpp nañu ñëpp jàpp nañu kon jërëjëf Sëriñ mi ñu taalal leer gi jërëjëf ay yastamin illahu inda jeewali iblis id naadaytuhu bi yaa wali asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërëjëf Serigne Touba alhamdulilahi rabil sant suñu borom ginnaaw bi ñu mayaate ñu fekkee weeru tedd yi nga xam ne moo di weeru safar safar di weeru yi nga xam ne moo ëmb bis bu màgg boobu nga xam ne moo di màggal Touba fukki fan ak juróom-ñett si weeru safar ngir jëm si waajtaay wi nag mboolem seen activité safar yi nga xam ne di ko amal seeni i daara ak seen i ak mboolem safar yi nga xam ne di ngeen ko amal seen i gox ak seeni i gox-goxaan seen seen YouTube Tawfekh Production di leen si gunge lépp jëm si waajtaayub màggal ak gi nga xam ne moom la ñu dëgmal moo xam ay reportage couverture médiatique ak mboolem activité yi nga xam ne moom ngeen def yépp Tawfekh Production nee leen si gunge ngir ànd ak yéen nu mu gën a muccee ayib ku si gën a bëgg ay leeral nag mën ngaa woote si numéro yi 77 251 04 05 77 251 04 05